xam nga Boobu Ndour da ko wax kérok wa ma ngui jahal mu ne dafa jaxlé ndax liko jaxal moy dafa seetaan ci wéru koor bi mais xeeti njàng yo xamni dafa dañ li ndax ay nit ñokay def ndax néna na bu ñëwé tay benn jankar ñëw day deg benn vocal bo xamni da nan kii mom mo tuje fi mais néna bu keneen ñëw nga deg leneen keneen ñëw nga deg leneen néna lolu musicien bu ko def da ngay faatu. aouzu billahi bismillah inna waliyallah jërëjëf Serigne Touba jara mamam Cheikh Ibrahima Fall mbokki julli di mbokki talibé yi batay ñu ngi ñëwaat seen émission jëf jël di and ak wa top model TMP Events ñi ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha sun borom dole ko fa yagal bu baax di ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall ak kulu Cheikh Serigne Touba ak Cheikh ibrahim Fall yi ñoo ngi siyaare mbokki talibé yëpp kër Cheikh Rou Fall muy Serigne Cheikh Rokhaya Fall borom digal di ñaanal yalla ko sam borom dole yagal bark Serigne Cheikh Fall seen émission nak ñëwaat na ñu leen ko waxoon ndax yéen ñu yebaloon top ngeen ñaari wër ñetti wër dañu laaj ngir ñu indi leen seen doom seen rak seen mag seen xarit seen nijaay seen soppe muy sëriñ Pape Faye Zikrullah muy doomi Pikine di doomi Caaroy doomi Géejawaay di doomi àdduna bi sax laay wax waaye yéen yéen a ñu waxoon nañu lu ñu mën a def indi nañ leen ñëpp moom ngeen gisagul def nañ ay yitte nag fexe nañ ba indi leen ko tey muy sëriñ Pape Faye Zikrullah yéen a li ngeen ñu laajoon ci internet bi pour ñu laaj ko ko dinañ leen ko laajal koo xam ni sa soppe la woon si karkan mbaa muy sa xarit di sa lépp lépp loo ñu waxoon ci moom tey dinañ ko laaj di ngeen ci am lu leer yéen a ngi ànd nag site bu mag boobu di TMP Events kon nag dañuy jox sëñ Pape Faye mu nuyoo rek ba noppi ñu doog ko tàmbali ci liggéey bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, bi ne euh, ginnaaw bi ñu waxee onze billah bisimilah inna waliyallah jërëjëfuti Serigne Touba maa ngi santaat Serigne Touba bu wér. di njukkal maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine di la siyaar baax yow Massamba waaw di siyaar bokki àdduna bi ñuy seetaan ñëpp noo ngi ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru mu yàgg fi loo tànn biir ñaanal sëñ Cheikh Jëmm Fall mu yàgg fi loo di siyaar itam sunu sëriñ sëriñ Xaadim Mbàkke di ko ñaanal bale sa mu yàgg fi loolu tànn biir am nañu mbégte lool ci ñëw bi ngeen fi ñëw ak sa mbokk yi mi ngi noonu kon mu melni dañu wax ni euh saxaar bu gar da fay corné kon nak sëñ Pape pour ñu dugg ci waxtan wi faaw dañuy bëgg rek sahar ci mom comme jumna gar bi rek mu corné laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha la ilaha illallah borom maam lamp faal mi leeral bu maam lamp faal mi leeral dam ñi réer baam ba ñu bee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 illallah dimbali nooy faal yërëm noo maam Cheikh Ibra keroog doo doo la jafe li lay ñaan faal am nga lépp faal maam Cheikh Ibra bu la soobee muy nangoo doole mbaa faal ngërëm moo faal keroog doo doo la jëfee. akasa jërëjëf Serigne Pape kon nag dégg ngeen ko mbokk yi waxoon naa leen ko ñu nag moom su ne émission du mën a sedd noonu bala mu kii parce que ni muy demee mooy tax. waaw ngir am na lu ñu xam tuuti ci moom rek waaye xamuñu lépp li ñu li ñu war a xam leen li ñu war a xam nag moom moo leen koy xamal waaw ba tey ngeen topp nag ci seet bu mag boobu muy TMP Events sëñ Pape Faye dañoo bëggoon a xam sëñ Pape Faye fan la gane àdduna Euh, jaajëf Massamba. Euh, dëgg yàlla ñu ñoo ngi génne àdduna géejawaay. Cheikh Wade. quartier Cheikh Wade waaw ci rond-point Mor Fadam. fa la ñu gënee àdduna. waaw fii ci géejawaay. ndax sëñ Pape Faye wajur mu góor mi ngi fi wala wajur mu jigéen. waaw waaw ñu ngi fi. waajur yaa ngi fi noo ngi ñaan ñu yàgg fi lool tànn biir. barke sëñ Tuubaa. yàlla na fi yàgg lool teewul barke maam Serap. Euh, noo ngi fi. te ñaan seenu yàgg fi. Euh, di di di sant nag bu baax ci nàmpatal gi ñi nàmpatal ci sëriñ bi. waaw di siyaar itam waa euh, daayira Cheikh Xaan Maan. daayira Cheikh Bas Mor. waaw daayira Maam Fall ak ñëpp rek daayira yëpp rek ñoo ngi leen di siyaare ñoom ñëpp. kon mbokk yi ba tey ñu bëgg a xam sëñ Pape Faye ndax jaar na daara daaray laxasaay wala daaray njàngaan wala sëñ Pape Faye jàng na école. yooyu lañ bëggoon xam mais nañ ko laaj daara ji ndax jaar na si daara yi njàngaan alxuraan wala daara yi tokk der laxasaay waaw ndeysaan ñun nag boo gisee sànq ma ni la daara Cheikh Atman moom moo mooy sunu daara mën naa ni falan tarbio mm-hmm. wàllu sikkar si mm-hmm. ñàkkul loo ci xam mm-hmm. daara Cheikh Atman waaw daanaka bi ñu amee fukki at ak ñett dañ ci tàmbali ban ban cay dem dañ ñu daan uuf ah, biñ ci njëkk dem dañoo uuf ci super waaw. boobu kan nga ci doon àndal. Lamine Diop moom moo njëkk uuf yóbbu ma daari seexaat man. ndeysaan Karok. Euh, ñu ngi ma jox kayitu téeméer bu bees tax waaye kayit bi mi ngi mel ni ci man. Mhm. daanaka comme gone goo jox ñaari junni rek. mu rëy lool ci man. Mhm. dama ko dama ko koo sax delloo. Mhm. mu ne ma déedéet yaa ko moom yaa tudd yàlla ba jox la ko. Ah, daara ji daara daara seexaat man moo nekkoon sunu daara. fa lañ tarbiyoo sikar si. fa la ñu jàngee itam ak taalibe waaw. sëñ Pape lan moo la dugal ci tur yàlla maanaam dafa am góor yàlla boo toppoon di ko roy wala sëñ Pape comme ni mu ko waxee dafa jaar ci daara sëñ Atumaan di demal boppam di nab bi di nab bi wala fa am ku mu xooloon rek ndax xam nga àdduna noonu lay tëri léeg-léeg nit day jël nit di ko roy bëgg ko di ko roy léeg-léeg nit jël yoonam rek ne ci moom yor yëfi boppam loolu it du suñuy laaj nag mbokk taalibe yi ñoo la koy nañ bu baax. Euh, mën naa ni daayira Cheikh Hanbane daan na am suñuy magum bi yu fa daan ñëw mm-hmm. ñu topp seen ginnaaw di leen aw mm-hmm. ku mel ni Baye Gora Kane mm-hmm. na ko yàlla yërëm dëgg tey bu nu bëggee sikaru Sam Fall euh, Sam Ngom benn galañ moom moom ci la bokk ndax ndax daan na ñëw ci daayira bi di ko di ko di ko dund nu koy ànd ak moom te mu mat nu maam du ma ni sax bàyyi deug yalla itam ku melni Lamp mbay mom itam dér la ci tour yi daan na daal di man ñuy top ci ginaaw uh-huh. way nak top gi top gi uh-huh. bu doon dañ leen daan top di di di and ak ñom ay bis uh-huh. mu nan daal di man rek dañuy ñëw waaw ñu ñu ñu ànd kook ñom aw leen ba ba seen waxtu jot wala sax ñu jox leen ñun li ñu wara def ñom ñu def ko nu ñaanal noonu la daan def. waaw ne wax dëgg yàlla comme euh, ko jëwriñ joo xam ne daan naa ko topp. di ko aw di ko tarbiyu wax dëgg yàlla yàlla dogalul loolu. waaw ci ci ci ci ci sikarkat yi. waaye itam daan naa jël tey ku mel ni daaju suñu mag Assane Mbaye daan ko daan ko sikar ma teewul nag ma aw ko. waaw daan naa jël daajam di ko sikar lu bari sax. waaw. bari ba fi may wax ak dama ko yëngu. dama koy yëngu bu baax ndax wax dëgg yàlla ndax day jëriñ ju baax te itam li muy def mu man ko lool noo ngi ñaan yàlla defal ko jàmm. waaw te itam ndeysaan noo ngi sàkku tam àdduna sépp yàlla nañ ko xam. asan ah bala gën a am lu ma neex. Mhm. ko sarafal mu woote bis yi gars di woote. waaw ndax yàlla na. waaw Sorano yeeg. grand théâtre yi ndax yàlla na ndax euh, wax dëgg yàlla tur yàlla. Mhm. yóbbu na fu bari dëgg yàlla na nga ko koy ñaanal te di sàkku ci moom ñaan yàlla na ko yàlla def barke maam Cheikh ndeysaan ku baax lay wax Assane Mbaye ku ñàkk ki ñaan sax waaw muy ku baax ñoo ngi koy nuyu au passage moom it di ko siyaare di ko ñaanal yàlla na ko Cheikh Ibra Fall defal jàmm waaw barke borom daaru xafoor sëñ Pape kon tey ñu ngi duggaat tamit bëggoon xam tamit sëñ Pape maanaam jaar-jaaram moom fan lañ njëkk a ci programme fan xam dafa dina fàttali bis bii laa mës a génn ci programme muy ay jàng yu mag bu mag nga xam ci nga njëkk a mbooloo mi toog ñu jox la rajo bi ne la bisimilah nga xam tey yaa war a fanaane guddi gi yaa ko fanaane jàng boobu loolu fan la xew woon. Njaareem. Njaareem waaw. Njaareem la xewee. Mm-hmm. Ah, te itam ah, ñu ñu am ci mbégte lool. Mm-hmm. Karo. Mm-hmm. Ah, sunu papa Serigne Diop. yàlla na fi yàgg. daf maa woo fa kenn nekkut. li ma papa mun ma ah tey de. yàlla dogal na ni sikkar si yow leen bëgg a jox guddi gi nga fanaane ko fii ci njaarim gàmm buntu kër Sëñ Modou Laye waaw ndeysaan booba nag ñu gën doontu tànk nag yi fi kawe lool ci man waane karoog bi ma bi ma bi ma ñëwee neen ma waaw li tax li tax xale bi ñu koy jox muy muy muy fanaane guddi gi a fekk ba boobu may doog a ñëw waaw ndeysaan waaye ne keroog bi ñu bi ñu tàmbalee. am na nu mel. waaw nee nañ ca daal ba mu ba ba jant bi génn. waaw yàlla ñoom itam ñu yëg ko. Mm. waaw yëg bu maam yëguñu yu jéggu dayoo. waaw te itam loolu xam naa ndimbal la rek. ndax li ku tedd ki wax rek jàmbaar amul kun dimbali am. jàmbaar amul kun dimbali moo am wax na ko njaaram la njëkk a fanaane guddi. buntu kër sëñ Modou Ablaye foofu sax laay xuse dugg sa diggante siñ sëñ Modou Ablaye ndax diggante bi ak njaboot gi gis nañ rafet rafet rafet na tax na lool macha allah waaw moo Modou Baye Djili ñu gis sa diggante moom day ndeysaan yàlla na sama borom yokk ay leeram te taas ñu si barkeem man maa ngi ko fekk njaareem kër njaareem dëkk bu ñuy wax tawféex dëkk sëñ Abdoulaye Ndiaye borom tawféex kéro guddi mako maa ko jang way dañ ma yob mo dem siaré ko ci takusan mo ndeysaan fekk mu sumi mbaxana wëru su am lu ma lu bari sax ndeysaan motax yalla yàlla na sama borom yokk ay leeram dara jey Serigne Abdoulaye Fall daal sa digënté ak Serigne Modou Abdoulaye ak njabur Serigne Modou Abdoulaye gi ndax dañu gis ni pa mom lu si même bu dé ben seede la sax bu dé ben daj sax Serigne Modou Abdoulaye dañu tuggu ak njabotam waaw lolu seet nañ ko ci kaset yépp seet nañ ko ci lépp waaw ñu bëgg xam sa digënté mom lu ko indi waaw mom ndaysan am nañ ci metti lool mm-hmm. ndeysaan xanaa xanaa bu ñu mënoon bàyyi noo dëgg jàll. dama yaakaar ne de mën na cee kii. may ko nodd bi nga xam ni euh, sëñ Modou Ablaye mi ñuy wax sa digganteeg moom mu nekk lu yéeme. adduna bi yëpp xam ko son booy génne bu dee benn son sax bu dee deux dina ci dugg ak njabootam sa digganteeg sëñ Modou Ablaye ci lu gaaw a gaaw ñu dàqanteeg émission bi. ndeysaan waaw koy ñaanal bu baax wàllu Kamal. Mhm. wàllu Kamal boobu. Mhm. nu ngi koy ñaanal bu baax fal ñebe yaram suñu borom dolli koy leer dolli koy ngërëm ak ndax itam lépp lu mu mës a wax rek gis nañ ko ah, naa ni man Cheikh mooy sama bunt ci maam Cheikh Ibrahima Fall ndax itam moom laa njëkka taxaw ci ëttam ci njabootu maam Cheikh Fall dëgg yàlla ñu ñëpp ma ci jox wàcc mhm. waa itam. waaye li may li may dem ci ak ak maanaam bisu njabootam. Mhm. Ah, néew na ci bis ma ciy dem. dëgg yàlla ah, du ma ñu demuma ci benn bis. waane waane waane ci ak njabootam laay wax. Mhm. ngir wàccuwaay bi ma jox. waaw ma leen koy delloo bu baax di ñaanal xalifaam. sëñ Cheikh Bintou Fall. ma ngi koy ñaanal baax Fall Ndiaga di ñaanal itam sëñ Ablaye. Euh, sëñ Mortala. mu suñu blaay waaw maa ngi koy ñaanal moom itam suñu borom yàggal ko fi lool waaw di siyaar itam euh, sëñ maam Cheikh Fall moom Cheikh Modou Blaye Fall mën naa ni ci bisam laa mujj fii ci cees na nga ko ñaanal Fall suñu borom guddal fanam may ko gër te itam boo gisee ma ma tudd ko ah, euh, magul ci njabootu sëriñ bi ah, waane maanaam daa bokk moom ci ñi ñi nga xam ne duñ tànkam lu sama bis lépp luñ yëg rek Ah, non ndongo ca ak jaxoso gi nga xamni serigne bi boole nanu ko waaw li nag njabootu sëriñ bi ñepp ñepp sama xarit la ma sha allah wa ni ci ni ci kaw ba ba ba ba ba ñepp rek ba ñepp rek ñepp sama xarit la barki serigne Tuuba waaw waaw barki serigne Tuuba waaw waaw mbokk yi ba mi ngi nonu serigne pa fay de ngeen ko digënté ak serigne Modou Laye amul lenn lo xamni ne di nga ko fàttaliku sa ak mom ben rek bo xamni lu ndaw la sa ak serigne Modou Laye mu yëkëti ko kaddu wax la ko mu frappé lool wala lo xamni mësna la ko wax ben rek jamono ji yaa ngi ciy doog teg sa bët. waaw euh, xanaa euh, bokk na ci maanaam ñuy jëlale. Mm, Cheikh Modou Blaye bokk na ci ñuy jëlale. di dégg di jëlale. waaw am na am na ci loo xam ni euh, roy nañ ko ci moom. for nañ ko itam ci moom. ndax bu ma juumul ñëw naa njaareem guddi gàmm goo xam ni keroog bari na lool ndax dama faa dama faa guddi egsi ndeysaan euh, waaye xam nga rek xër mooy demee noonu mm. day am da ci am lool nit ki di nga ko jege ba yaakaar ni mm. warut laa bokk bokk kenn léegi nag ndeysaan keroog nag ñoo ñu comprendre li xew mm. ngir guddi na noo egsi ci dongo yi am nu xaw mer ndax heure bima exi ci gamu ga ba tax nu am nu nu xolé ak man sëñ bi yëg nak nag di maam daal di ko ci lolu waaw karoog doon def lu bari hmm. ko nan genn baba ñaanal mbolo mi fajar ñu ak mom waaw wani karok hmm. ama amana amna ci lo xamni ni hmm. euh, buma de buma buma buma sañe ni dal señ bi Euh, am na lu ko mos a naqari. loolu loolu bokk na ci. waaw loolu bokk na ci karootam ñu gis ci ak ñàngat mu woonu dalal nu itam. waaw te waaw lu mën a xew pap del ñëw. ndax papa papa la ma daan wax. waaw papa ma ne ko Fall mu ne ma lu mën a xew. del ñëw. yëg naa lépp. gis naa lépp itam. waaw ne yow bokk ci kër gi. waaw lu mën a xew. del ñëw ma ma dolli ko waat nag. ah ma dolli ko waat daal di daal di delluwaat waaw kay daal di gën a jàppaat nag. du ñàkk a Fall. waaw sëñ Modou Ablaye moom loolu mu wax loolu noonu la mel li mu wax nii man xam naa ci lu bari wóor na Cheikh Fall yàlla na saa borom yokk leeram rek taas ñu si barkeem barke sëñ Ablaye Fall daal sëñ Pape murid yi ak julliti yàlla yi ñu ni sëñ Pape Faye kan mooy sëriñam. sëñ Xaadim Mbàkke ñu ngi nii ci kaw waa kër Maam Mor Jaara la borom Saam. waaw mooy sama buntu ci Serigne Touba. waaw moo nekk nii ci kaw. waaw nii ci kaw. Mbacke Balla mooy sama wasila. mooy sama bunt ci Serigne Touba. yàlla na fi yàgg te barke Serigne Touba ndax dëgg yàlla dimbali nañu. waaw gunge nañu ni itam. tax na itam ñu ñeme. ndax ah, mën naa ni moom bokk na daal ci ci ci ci ci njabootu sëriñ bi ñi nga xam ni dañuy dañuy def te duñ wax. mo xam muy ci ci ci ci lu bari dal wax dal wax dal baxul wax ci yep rek ci yep waaw nañ ko ñaanal rek ci yëpp macha allah <laughs> daa sëñ <laughs> la señ bi moom ci yep rek waaw waaw waaw ci yep kon nak ba ñu bëgg xam señ sëñ euh ñaata CD bi nga dalé tuddu yalla ba ñaata CD. ci est ce que dina ko japp nak ma samba ah, ñu ko rek. waaw dina xam naa daal bu bu matul bu matul fukk daal romb na ko waaw bu matul fukk daal romb na ko ndax deux mille deux mille yaakaar bu ma jubul deux mille quatre deux trois la suñu la suñu album njëkk génn waaw dafa mel ni. ca kaset ya waaw laata seede waaw xanaa Pape Dioum ay Pape Dioum ak ñooñu dafa mel ni. Lamine Dieng Lamine Dieng te mu nekkoon Ramdaan ci Thione Seck fa la nekkoon euh, yàlla boole noonu moom. moom tam mu ñëw jàpp ci wax dëgg yàlla. moom moo ñu njëkk defal kaset euh, bu njëkk. waaw ko dundee woon amoon ay coono ay métit wala naan na la ko dundee. waaw xanaa nag euh, ndeysaan booba. nu nu bëgg a génn lool. bëgg a feeñ. Mm-hmm. wax dëgg yàlla itam ñu ñu ñu am ci nag lu kay suñu jot. Mm-hmm. waaw ndax kaset ba ba mu génnee. Mm-hmm. am na am na am na lu mu tombeel am na tam ñu mu tombeel waaye wax dëgg yàlla bokk na ci kaset yi ñu doon lim loolu nu am ci mbégte lool ah te itam bëgg gi ñu ko bëggoon itam sëriñ bi jàppale nañ ci ba tax nan ko bëggee woon mu amee noonu. ba tey kaset boobu laay ñëw su ma la waxee kaset boobu ban daaj moo ci gën a siiw ban daaj nga may daajal ne ma daaj bi moom lañ ci gënoon jàpp moo gënoon siiw ci kaset boobu di jëkk génne. waaw bokk na ci Naar Fall Baye Góor Naar Fall Baye Góor. Naar Fall noo ko sigaroon Pape. Naar Fall Baye Góor borom Kawsara xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall ñaanal noo. ma ni xel koom gi ku mu tegi wane nga ci sa tur wee. gars yi ni Cheikh Modou Fallou Fall. ma ni loo nu nu def loo aaye nu bàyyi loole. ndeysaan la moo toppoon ci Naar Fall. bokkoon na ci daaju Assane Mbaye boobu. laa ilaaha illallah. kon lii Assane Mbaye moo koy woyoon. <coughs> waaw dafa doxal air bi moom waaw dafa bi nga Kumba Faal yaa ngi borom leer. waaw Assane loolu la way man ma ñëw ni laa ilaaha illallaah mu seero faale aboori jaar laay. dëgg naa la Assane dafa ñëw tey ràmbal yow nga ñëw musical. lola <laughs> santa rambol ramble nga musical lola la <laughs> lay problem di? problème bi boo mooy deuxième heure bi ci rewou troisième bi lan la bari na bari na bari na yu top de wa def na tam amni musafa la ilaha illallah la ilaha illallah may zabi ke kum faal ya baabin lomi dol beneen ma ñu wat amna benen bo xam dama ñew ni la ilaha illallah sama rumun ba ke ba la ina lay fa hmm. bay mam khadimo la ina lay fa ndeysaan wa walaay walaay walaay lu mën ta ñàkk desan may <laughs> delo dembu, dembu dembu dafa neex seigne bab dembu dafa neex barki serafal te yun damay wax gaay dama ko nan sigar gadi mu sax bu yuuxoo dañuy xam fa mu jëm fa mu jëm ak yuuxu ba barke Seera Fall xam nga boobu Ndour da ko wax keroog waaw maa ngi koy dégg mu ne dafa jaaxle ndax li ko jaaxal mooy dafa seetaan ci weeru koor bi mais xeeti njàng yoo xam ne dafa dana lii ndax ay nit ñoo koy def ndax nee na tey bu ñu ñëwee tey benn jànkat ñëw day dégg benn vocal boo xam ni danaan kii moom moo tëjee fii mais nee na bu keneen ñëwee nga dégg leneen keneen ñëw nga dégg leneen nee na loolu musicien bu ko def da ngay faatu nee bu def li jànkat yi def da ngay faatu kon nag jànkat yi tuddukatu yàlla yi war nañoo xoolaat seen bopp bu baax a baax te xam liñ tey waaw. dafa am bis euh, benn woykat bu siiw du jaatu ñuy tudd tur yi waaw euh, léegi ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko encadré euh, ñoo amoon jafe-jafe lu mu woy pour lu ko aw léegi gars yi gars yi maanaam gars yi di xalaat daal ba dañ ma. waaw ma ni leen Aïcha bi gars yi di xalaat ba daj ma ma ni leen Aïcha euh, bi ma ñëwee nan ko bëggee mu amee noonu waaye keroog moom lu ma ci tegal mooy lan ngeen di naan ma ne ko café Touba mun ma déedéet am na am na yeneen yëf ma ne ko déedéet defuñu dara café Touba la ñuy naan ci kàttanu sa borom waaw gu am jar di tudd yàlla kese loolu képp la ñu def te itam tarbi yu itam tur tur yàlla yi waaw ndax ndax ndax bari na ci kuréel yoo xam ni. Mhm. am na waxtu woo fay dinaa ko suñu tubaab ba léegi kat gaa yi dañ may woo di ma laaj ngir ngir maanaam baat lu koy toj mhm. baat lu koy ci baat lu koy ci nangam mën leen yaram waaw baat suñu tubaab mën leen du dara xam nga la daal ñemeel tur wi rek. Mhm. ñemeel tur wi te nangu toppee. toppee nag bu ñu ko wax topp nit ci muy dox ngay dem déedéet boo toogee ci kuréel. tey Massamba bu yëkkatee nangu ko ñëw awu. ginnaaw ginnaaw ko Serap Fall gis nga am na ñu bari ñoo xam ni topp nu. topp nu tuddkatu yàlla di ko topp di di dem. muy jàngi di fanaan yi baas déedéet. xam nga nañ ko toppee. Mm-hmm. muy aw. Mm-hmm. ñu ñëw nangu ma ma muy sikar. Mm-hmm. ñu ñëw nangu ko aw. moo xam day fanaan. moo xam daa am waxtu. fu mu jaar ñu jaar. waaw jël li nu am lépp jox ko. sànq moom mom laa la tuddal ci daayiru Cheikh Atman Diop manila manila man man sax ba ba am ni daawuñu déglu ndeysaan kii dëbbee ma jigi man la ni ñew di yekati sen sen xewal di ma jox motor ngir man yeg yeg ga nga xamni ko ci ki limi sekar ma top ko di aw jël lima am lepp jox ko waaw kooka serefal bis bu gesso kontaan gam kontaan ci yow bal lay don jërëjëf sëñ Pape lii de ki ma ko wax sëñ Moustapha Cissé la yal na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana moom moo waxoon ne ma Massamba ma ni Fall mu ne ma boo tuddee te yàlla ba sa yaram tànk saa boo geesoo di ma xool bu ma xool xoolu njëppite bu ma xool xoolu njëppite saa boo ma xoolee xool ma bëti yërmande am na foo xam boo fa tollee noo ma xoolee rek noonu la ma yàlla noonu la ma yàlla def barke Cheikh Fall ne ma tur yàlla boo tollatee foofu dee ma xool xoolu yërmande ngir maam yërmande sunu borom waaye saa boo ma jéppee rek sunu borom dina ma jéppi mooy lii nga wax nii looloo am day xel ci yow sëñ Pape kon ñu ñëw ci wàllu clip bi xam naa waaj ak may wax na mu waxtu waa ngi waaj a damaa bëggoon nga wax ñu ñaata clip mu gaaw. clip yi waaw clip yi xanaa bu nu bu nu juumut ci deedu jaas lañ tàmbalee. waaw ah, ci deedu jaas def Soxna Maam Oumy Fall. jóge ci def sëriñ Saliou. mu jëm Sassine. Serigne Sidi Maxtaar. Eh, def yoonu Serigne bi. yaakaar naa dal bu mu jumut waaw toll na ci jurom ñaar dal xam mo wala wala yonu serigne bi la def. yoonu sëriñ waaw. waaw waaw yoonu sëriñ bi yow yow. xam ko xam ko waaw comme. waaw dama ñëw rek ni ni ni ni booba xam xa. te ñun murit am na lu dul màggal gi. Hmm. waaw ma ñëw rek dal ni gaay li la bëgg def gaay ni ma lan la. Hmm. waaw ma ne kat. comme soppe yi topp nañ ma ngir ndong ñuy xaar tey fii jàmp na man kat lii laa xalaat ñu ne ma lan ma ni leen dara gënul neex lii yoonu sëriñ bee gaay ni sëriñ Bamba bari doole ñu àndandoo daal ni ànd ak Bamba lu wóor laa mani modu mudu bamba li mu daj mu ñu ko may li mu am gay ne and ak bamba lu la mani ku jaar fa bamba jaar des na la jaale and ak bamba lu la mani sing bamba bari doole sing bamba ya mën a boole nit ku ñuul ak nit ku weex limber wir wir wir maa yombe xam nu la dara gënul neex li yoonu sëriñ beey Mbàkke nga takku jug ma takku jug ñu dem sàkku ngërëmam naay sëñ ba mbaa baani doole mani ni gënul neex bis bu bu yegsee ñëpp daje taq la xasaay Cheikh Modou Moussa Daaru Xuddoos dara gënul neex bis bu yegsee ñëpp daje taq la xasaay Cheikh Fallilou borom nindi dara gënul neex bis bu yegsee ñëpp daje taq la xasaay Cheikh Abdoulaat borom belal dara gënul neex bis bu yegsee ñëpp daje taq la xasaay Abdoulaye gënul neex bis bu yegsee ñëpp daje taq la xasaay ma ni sëriñ Saaliw gaay ni borom jënnatul maxwa dama leen di wax rek <laughs> war leen ko waa top modèle du ñu xaj ci émission yi duñ ci xaj war na Cheikh Rafal Pape yàlla nga gudd fan dara jël Cheikh Rafal yàlla na nga gudd fan barki maam seex mu mel ni émission bi mi ngi tiré à sa fin mi ngi wax ni ñaari minutes ñetti minutes moo ñu dese sëñ Pape li ma laaj ni mooy mu gaaw ñu def ko pelloo rek mooy international Pape fan la mën a tukki ci avion wala dëkk Afrique yi fan nga mës a dem. waaw ndeysaan euh, bari na nag dëkku Afrique bu ñu tàmbalee ci Gambie waaw suñuy mbokk taalibe ña nga fa Baye Fall ñoo ngi leen di siyaar ñoom ñëpp di ñaanal day ndeysaan sama waaja bas bas ñi nga yàlla yërëm ko nga xam ne moo fa daan def bis boo xam ne bis bu mag Baye Fall yëpp di ko yëg. macha allah waaw Gambie waaw dem nañu tam Grèce. waaw. Euh, def nañu escale. Hmm, Tunisie. waaw yooyu yëpp nag jaar jàll la. def nañu escale euh, Turquie. waaw yooyu itam jaar jàll ay fan rek. Mhm. Euh, def nañu escale tam Maroc. Mhm. yooyu yëpp tam ay jaar jàll la. li ñu mujjee dem. mooy France. Mhm. waaw France lañ mujjee dem. digal euh, montrey près de congrès ma ngi siyaar waa ñu wa wa wa mbok taalibe bi fa nek ñepp ak ak suñu sang ba euh, seigne Cheikh khadi wa moom Cheikh Modou Ablaye ma ngi koy siyaar suñu borom defal ko di ñaan tam raxu mi nga xamni bon ñu and ak sunu joju umro ànd kook mbok taalibe yu bari sha allah yàlla def na ñu yàlla yàlla def na ñu dem ci jàmm ñëwaat ci jamm waaw dëkk yooyu daal jaar nañ fa waaw Pape lan ngay dénk sikarkat yi tout tànk yi nekk sa ginnaaw lan nga leen dénk ci lu gaaw. Euh, euh, tout tànk yi mooy euh, ñu ñu ñu ñuy toppe rek ci wax ji ma wax sànq toppe gi nag mooy dëggal jubal leeral waaw waxuñu kenn bàyyi métier di topp kenn nan am métier bu daayira jotee nga dem bu programme jotee boo wàccee dem dëggal jubal leeral teg ci wormaalante wegante ku dul joxe cër doom cër waaw te sëriñ bi dani ku yoruli teggin doo teggi dara ku amutub yar doo yor dara kon loola tënk na lépp nañ ami teggin nañu yaru nañu wegante te jox suñu mag yi cër bi saa borom jox leen léppay tawfeexe waaw koy pap sëñ pap dafa am sa benn soppe bu jigéen maanaam mi ngi nekk ba booru Norvège am message yu ñu envoyé woon daf ma ko ñaan nag dama dama la ko ñaan ngir jëmmi sëñ tubaak ak Cheikh Ibra Fall bu ngeen dajee même bu dee une la sarax ma ko mu woyal ñu loolu mooy loo baax baax da ngay dee loo bon bon da ngay dee mooy ma daa bopp noonu noonu waaw laay laay la laa boobu maam yëg na ko nag ndax am na nu ma ko waxee noo xam ne sax mënu ma ko wax waaye àq la te man ni ñu ma ko waxee rek bindee ma ko noonu laa ko waxee même bu dee benn minute la maanaam nga doxal ko rek dem ci boo paree nga continuer tàggoo. waaw waaw ndeysaan waaw Dédou Diass. waaw boobu itam de. <coughs> bokkoon na. ci air yi nga xam ni. gaa yi gënoon nañ koo bàyyi xel. ba léegi sax dañ ko ba fii nu jógee sax. dañ koo dañ koo laaj. Mhm. Bac Cheikh Fall. te ban ko jàngee itam. Mhm. mën naa ni àggut. doguma la ndax bi jàng. dama woowee soxna si di laaj daf ma wax ni ñaan na waye dañ ko woon daan daajaat beneen air bi. waaw ndaysan ñu sant ci bax nak air bobu bima koy yëkkati ndaysan kaset bi mu bok mbaa xam nga ni bokku ci won waaw da no sikar kaset bam jeex. gaay ni ma yow dan la xamee Madda. nga Madda ci sikar ci waaw mën leen naaw kon nu ñu def ñun ah xolal lo wax rek. Eh. lay ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah Baay Faal Muhammadu Rasuulullaah yow loo mën a mel ak koo mën a doon loo ko berndeel du tee doon saggan di la wër bilaay deedu jaas kuy di laa jël xayrul ambiyaay lu bàyyi si naa memet ak saa baam ya ana Ababakar dem na sidna Aliyu dem na ana Umar dem na sidna Usmaan mm, dem naay ku wa yeneen way saa baya lu bàyyi si naam du bàyyi Cheikh Modou Mourtala Cheikh Modou Fall Fall jàmbaari xel kom ja dem na la la la la la laa ilaaha Baay Faal Muhammadu Rasuulullaah jërëjëf sëñ Pape lay tàggatoo waa yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaanal euh, suñu taxa mbakk mu yàgg fi loolu tànn wér njabootu suñu tubaab Cheikh Ibrahima Fall gépp ak jullit ñi sëriñ Cheikh Jum Fall ak euh, suñu yi mhm. yàlla na fi yàgg ba yéen a gën a am ci ñoom mhm. ñu defee ko ni ñu ko bëggee ak ak bépp waajur waaw ñi jiitu itam yàlla na saa borom yërëm leen mhm. ah, ñi nga xam ni itam caar bi leen a féete ginnaaw yàlla na saa borom def nu génn ci jàmm ñi tëdd ci hôpital itam ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm fëkk seen bopp yàlla na ñëpp am jàmm daal yàlla na jàmm yaatu fépp ci barke Sëñ Tuuba ba tur wi itam ñu koy yëngu te amuk wér wér gun ko mën a defee ndax wéree lépp yàlla nu mucc yàlla nu wér yàlla nu am bu nu amee yàlla bu nu beew yàlla ñu ci liggéey lu saa borom gërëm barke Sëñ Ibrahima amiin looy wax waa top modèle top modèle waaw ca kaw ca kanam mhm. waaw yéen maa ngi leen di teewlu te maa ngi taaxirlu macha allah maa ngi leen topp bu baax émission yi ngeen def yëpp macha allah waaw ah, noo ngi ñaan ca kaw ca kanam mu dem ba doon tele bu mag international fépp ak Sidi Ibrahima jërëjëf sëñ Pape Faye mbokki taalibe yi mbokki jullit yi dafa mel la ngeen ñu waxoon nag defal nañ leen ko ndax yéen ñu ko laajoon ñu defal leen ko noonu kon nag na ngeen xam ni la ma leen waxoon ci njëkk ba rek seen xarit seen doom ah, seen wëllëre seen soppe Serigne Pape Faye la ngeen ñu laajoon ci moom rek dafa mel ni lii kese la moo tax laaj nañ ko ci jàmm sunu borom dimbali nañu àggale na nañu jàmm te it tontu na tontu yu leer te set te dara loo xam ne jàdd na amu ci kon nag loolu ndimbalu sunu borom la ñoo ngi koy ñaanal nag lama leen waxoon rek am na lu ma leen bindoon ci internet dama leen waxoon ne leen man dama koo xam ndax am na loo xam ne mënu ma ko wax ci moom waaye dinaa ko laaj dinaa ko laaj nit nag boo ko xawee jekk